asalaamualeykum maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen ndongo Seydina Jibril Kawsara moo am yéena dellu si ak yéen ci yóbbalu bés bi ki yeewu amee jikkoy yaaram ak ka bëgg a yeewu amee jikkoy yaaram ñoom ñëpp nañ fexe ba amee ay teggin rekk ndax teggin moom mooy wàccaayu ñëpp mooy taarub ñëpp teggin moom mooy wàccaayu ñëpp mooy taarub ñépp ñoo ngi ko toxalee nag ci téere buñ naan nax ju xadaayil xaaj Serigne Touba wax ko fa jërëjëfe Serigne Touba maam Cheikh Ibra